sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti la leen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu bi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a bëgg foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu man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 dañ leen di nuyu rek bàyyi leen ñu nuyoo mbokk internet di bu ko defee ñu informé wu xam ba xam lan moo leen fi indi woon maa ngi fekk Aline Gueye yaakaar naa ne ñi fi teew tey bëri na Ibulaay production Jam production ak ki nga xamante macha allah mi ngi doxal wàllam ci lit simple bi bu baax a baax a baax ak Jandeer production ak Fallou Ndiaye bëri na Jufi production ñoom ñëpp ñu ngi fi dañuy nuyu géey rek bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet di ñu jublu ci waxtaan tey moom daa sañ xam naa ne nag est que rayul xaar sax doog a ñëw maa lay siyaar bu baax a baax di la waaw moo danta maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu internet yëpp di leen euh, ñaanal jàmm si ajuma ji ñu nekk mm. mais di remercier pour sama mbokk promoteurs yëpp ma àndal mm. ñu ñëw fii tey euh, ak rencontre bi ñu am ak CNG mm. di gërëm waa CNG yëpp voilà rencontre bi ñu am nag tey ak euh, CNG dañoo gis ni état bi day toog ba mu nekk rek mu daal di kii làmb ni làmb dootul am annuler ay làmbu jàmbur te promoteur ba dafay dem euh, investir alalam si journée nga toog ba ñu naan suba la ak gannaaw suba la ñu jóge fa ne la làmb amatul. sans ñu notifier la këyit sans dara CNG sax du ko yëg. da ngay jàkk baag rek ca kaw la jóge ca kaw la jóge mm-hmm. yooyu la promoteur yi wax nag mënatuñ ci ànd. Mm-hmm. loolu mënatul nekk c'est fini léegi nag sur point yooyu lañ doon ñëw doon si waxtaan ak CNG. ak euh, beneen point bi nga xam ne mooy subvention bi nga xam ne état bi da ko waxoon da koy defal promoteurs yi ci yooyu aussi ñu ñëw waxtaan si ak CNG ban daal modalité la ñuy doxee yooyu. loolu daal moom ak euh, mbër yi nga xam ne salaamaaleykum ñu dem génneel la léegi certificat médical ñu ne dañoo feebar wala dañoo gaañu. promoteur ba aussi toujours moom rek mooy dee. Hmm. si yooyu lañ doon waxtaanee daal xool bu baax solution yi nga xam ne daal. Hmm. moom lañ si indi. Hmm. ba ñu ñëwee nag fekk nañ fi ñi nga xam ne vraiment ñoom it fekkoon na leen si ndeysaan ñu waa CNG ñuy xalaat ci lu demee noonu. Euh, si annulation journée yi ak yooyu. mais ñun promoteur nag dañoo bëgg soo annulé tey journée jaamur. bu jamay kay tëggee nga annulé journée am non da nga koy dédommagé. parce que dafa jël alalam investir ko si nga toog ba mu neex la tëdd say climatiseur tëdd. ñëw ne léegi làmb dootul am au moment boo nee làmb dootul am football mi ngi am. Mm-hmm. <laughs> yenn sport yëpp ñi ngi am. Mm-hmm. léegi pour fan lañ teg ni làmb doot du am. Mm-hmm. amuñu ko xooluñu sax ni waa ji lu mu investir nii la walla naa la ñoom daal euh, toogal sa climatiseur rek commencé annuler ay làmb. loolu nag lañ bëgg mu jeex fi. te loolu moom du lu ñuy kafe du lu ñuy caaxaane du lu ñuy lenn. yàqu bi daa bëre. jamono yële si ginnaaw gis ngeen Iba Mar noonu la woon ñu toog ba mu neex la rek ñu làmb amatul xale yi perte seen xaalis ñenn ñi banque lañ demoon leb xaalis. Mm-hmm. ba tey ñi nga am ay problème ñi ngi leen di topp di leen poñe nan leen indi leen xaalis bi leen xaalis bi. Mm-hmm. te xaalis boo xam ne lekkoo ko defoo ko dara da nga toog ba seeg rek acca mm-hmm. état jóge fële rek ne la làmb amatul. te xam nga cas force majeure buñ ñu wax loolu parce que ñun xam nañ cas force majeure lan la dàqu ñu ñoo jàng gënuñu ñoo xam li li xew cas force majeure am. ñu xam nañ nañ lañ koy déterminer mais li nga xam ne ñaa ah, ah problème mu ñaari nit la ñetti nit la nañ leen rek régleel si seen biir mais mënuñu ko jël lépp sëf ko làmb ni làmb dooni làmb moom moo tax violence bi am fi dooni làmb lii moom moo tax moo tax yàlla weer leen football bi gis ngeen jaraaf football na fi ak Pikine gis ngeen nu mu dewee adduna bi gis nañ ko te lool du làmb du dara su doon làmb kon ba léegi xanaa dañu tëj làmb nañ dindi complexe bi nekk ci ñun mm-hmm. toujours moo ko sénégalais il faut mu dindi complexe ñun làmb la ñu am dañ bàyyi nit ñi dafa am ni nga xam ni dimanche làmb moo leen dundal nañ leen di bàyyi ñuy dem di seetaani làmb problème bii ñuy wax si réew mi yëpp bu ñu bàyyiwoon làmb ji dem kon nit ñi fàtte nañ ko. am na solo ci ñaari point yoo nga yi nga xam ne moo leen fi tax a ñëw tey ban moo ci gën a avancé. non pour le moment xam nga lu ñu metti la ñu ñëw di ko wax di wut solution léegi am na yeneen rencontre yi nga xam ne dañ ko war a dajawaat ak CNG. si yooyu parce que lii moom duñ ko bàyyi ñu ko bàyyi mu nga xam ne rek dafay naax saay noonu. Mm-hmm. état bi loolu moom force la. Mm-hmm. état bi dafa war a dédommager promoteurs yi nga xam ne waroon nañ fi tey boo annulé sept journées cent quarante huit heures nga xam ne mais affaire bi yemul ci promoteur rek boo xoolee mbër ma nga ma nga annulé combat mbër ma fu mu jëm yow mbër mi tey bala moo bëree adduna bi yëpp dina fa jaar ket pour mu bëree. lu nekk ko koy dimbale jamaïcain dimbale ko. Mm-hmm. Modou Anta ku mu dëkkal koñ ba ñoom ñëpp ju dimbale ko ba journée am ñëw nga ko de est que boo ko day retourné waat demaat si ñooñu ñooñu ñooñu war ko jàppale waat. Mm-hmm. mënul nekk. Mm-hmm. donc bala ñuy defati lu mel nii nañu laaj te lii lépp man lu ko indil mooy ñàkk ministre des il faut il faut état bi xam ni dafa war a am ministre des sports premier ministre mënul cumuler ay ministre des sports lu nekk mu bëgg ko cumuler. lamb dafa yaatu ginnaaw. mooy c'est pas pour rien chaque dimanche nga ñëw fii arène bi fees dell. sport yi fi am yëpp lamb rek moom mooy mel noonu loolu nag war nañ ko gën a jox cër te ñun loolu lañ am buñ ko joxee cër loolu lañ am buñ ko ñàkkalee fayda ñun loolu lañ am donc nañu xoolaat bu baax li ñuy def si côté boobu. Euh, beneen bi moom nag mbëri coono bi ñuy teg si certificat médical looloo il faut mu arrêté proposé nañ CNG ni ko léegi au lieu que yow mbër mi tey boo gaañootee ngay dem di seeti benn médecin di gisee ak moom. Mm. non loolu dootul am na ñëw directement CNG. CNG yi indi wa xool médecin médecin bi ñëw xool la soo gaañoo ñu xam soo gaañoowul ñu xam. da a remarqué ne ay tapale def si am. lépp ay tapale la nga naan dama nga remarqué amul amul remarque parce que nag yow da ngay balaa làmb ji commencé la diw dina la indil certificat médical làmb du am nga dem ba làmb ji des ay 5 jours 6 jours même chose am te yéen ñëpp li may wax ni yëpp ñëpp xam ngeen si dara. muy journaliste ak amateur ak ñëpp xam nañ si dara dangay ngay toog ba saa ñun la sa jouru làmb am nga ne lu tax du am ñun la diw dina indil certificat médical diw du bëre effectivement noonu lay demee hmm. loolu noog mooy lan hmm. il faut ñu xoolaat bu baax loolu nag la ñuy wax CNG heureusement que ñun ba ñuy ñëw di wax ak ñoom sax ñoom ñi ngi ci woon léegi nag am na nga xam ne CNG mënu ko parce que état aussi boo ñëwee nga dënk lu mel ne CNG nga ñëw dénk ko làmb ci làmb du ay caaxaan li bootu ci ginnaawam dafa bare boo ko dénkee booy annuler avant ngay annuler na nga ñëw laaj ko waxtaan ak ñoom laaj leen ñoom bu boobaa dinañ la ah non premier ministre bu la annuler loolu parce que bis boo ko annuler mhm. xale yi dinañ perte lii dinañ perte lii dinañ def lii conséquences yi lii ak lii lii la wala bu dee mën nga leen dédommager nangam nangam mais toog sa sa mu sedd rek nga ne acca lii du am loolu nag moom lañu wax ne di jeex na fi ñun nag tojuñu la demuñu marche defuñu yàquñu defuñu lenn président recevoir na fii ak làmb gis ngeen coow la fa am ku nekk nag recevoir na la amul benn coow mais waa làmb rek la recevoir coow li commencé jàppal bàyyi kërëb kërëb sëg loolu rek moom moo lay wan ni làmb ginnaaw gi yaatu na làmb du affaire caaxaan parce que li mu rëy moom moo tax euh, beneen bi moom mooy euh, euh, def naa suñu deuxième point mooy subvention yi si côté subvention bi aussi waxtaan nañ si bu baax ak CNG léegi ñun dañu war dem promoteur yi ñu ñoom am na lu ñu proposé mais mënugul génn comme loolu ay proposition te am li nga xam ne ñun ànd nañ si ak li nga xam ni xëy na war nañ ko xoolaat ak ñoom waxtaan ak ñoom loo tax dañuy dem waxtaan suñu biir suñu waxtaanee suñu biir ba pare daal di ñëwaat proposé leen parce que njariñu làmb la bu ngeen xoolee nag kii tey promoteurs yi fi nekk. Hmm. ëpp nañu lii junni yoon. voilà foofu laa bëgg foofu laa bëgg na ñëw parce que. Hmm. Ah, ah. gis nga euh, lii du association. du suñu association rek moom moo ñëw ñun làmb la ñuy défendre intérêt làmb la ñuy défendre du ma sàmba du ma demba ku fi ñëw sa intérêt lañ lay défendral boo toogee sa kër ñu ngi lay défendral sa intérêt donc yeneen promoteurs yi nga xam ne dañuy réunion fii di réunion intérêt làmb ñu toog seen kër defoon naan clan bii laa bokk ak clan bi làmb dépassé na foofu làmb amatul ay clan ak ay nangam intérêt ñëpp la ñuy def donc ñoom ñëpp lañuy ñëw bu ñu ñëwee ñu daal di toog waxtaan xool nan la làmb di demee mais tey fii ak ñi toog seen kër ku nekk di jaay ay man sama kuréel du dem ak ay sama kuréel dem. lii xeebel la indi kenn kenn kenn du yéen respecté kenn ci làmb ji. bu la déggee mel ni dafa mel ni problème dafa am hmm. parce que lii taxaw fii kese du promoteur yi nekk si làmb ji. Hmm. bari na promoteur yi fi nekk aussi te yaakaar naa ne état bi muy woote am na ñu ñëw am na ñu ñëwul xaalis génn na nag intérêt yëpp taxaw. Hmm. tey ñu gis ñoo xamante bi nii ban nga jee tëgg mat na deux ans. ay promoteur lañ am nañ licence am na ñu ñëw di bootse pour maanaam parce que xaalis bi moo taxaw lan mooy problème bi ak promoteurs yi lan mooy seen problème ba tey instant yi nii tey ñaari kuréel ñetti kuréel da ciy am te bu intérêt personnel taxawee rek ñëpp jógandoo. ñu xoolal problème bi. Ah en tout cas ñun ñu fi nekk nii. Hmm. amul kenn ku fi taxaw nga xam ne sa intérêt mu la yëkkati. tey boo toogoon ñoom ñëpp koo ci déglu kàddoom intérêt làmb ñun affaire làmb la ñuy wax waxuñu ay affaire ma sàmbaak ay kuréelu ma dembaak ay yooyu yëpp intéressé wuñu la preuve en est gis nga suñu réunion bi jiitu lii avant tey ñëpp la ñu woo amul kuréel gu ñu woowul ku ñu xam ne daal yaa ngi jëngu jëngu ci làmb wax nañ la ne ah ñun promoteurs yi kat dañoo bëgg ñu daje waxtaan suñu biir xool lan mooy doxal làmb ku ñëw baax na ku ñëwul ku ñëw ñun ñoo ngi ci ku ñu ci fekk baax na ku ñu ci fekkul baax na de toute ñun waxuñu pour suñu bopp rek li ñuy wax daal luy avancé loolu làmb la liy jëmee làmb kanam moom moo ñu fi indi donc nag euh, Sénégal nag noonu la toujours nii la dafa am ñi nga xam ne ñooy nekk au devant de la scène il faut mbir commencé ko bu ñu demee ba nga xam ne nag njariñ mi ngi commencé génn ku nekk daw di ñëw. loolu moom yàgg nañ ko si Sénégal te loolu si du làmb rek la si lépp lay continuer lépp noonu la mel. CNG ñun ñoo la gën a xam loolu. parce que xoolal suñu daje bii passé lu gën a gaaw ba ñu dajee nii di waxtaan. ñun intérêt làmb rek lañ doon waxtaan ñu fa leneen li nga xam ne kiiwul mais am na ñeneen ñi nga xam ne rocceeku la ñuy ñëw CNG di ko kuréel gëlëkat dañoo dajëfal di xas CNG te amul lenn luñ fa wax li nga xam ne mooy mais CNG nag ay nit lañu yàgg nañu jiite ay nit xam nañ bu baax ba bañ leen ko waxee déglu nañ leen bañ pare mais xam nañu kii lu muy wax diviser ay doomu aadama boo koy tax a yëkkati il faut naafeq yooyu nag ñu affaire naafeq yooyu ñu bàyyi ko dañ lay woo ni la ñëwal ñu doxal affaire làmb nga daal di wax se wax ju rafet ni dañuy acca acca dinaa ñëw ba ñëpp toog ñiy xaar nga daal toog sa koy yëkkati sa téléphone di woo ay nit naan leen ay bu leen dem ci kuréel ga parce que nii ak naa kuréel gii lenn dong la am na ñi nga xam ne bokkuñu association ñi nga fi gis nii kii dafa bokk kuréel gii kii bokk kuréel gii kii bokk kuréel gii ñun lamb la ñuy défendre intérêt lamb moo ñu tax jóg muy man Alioune Gueye ak keneen ku mu mënti doon man du ma fekkee fu ñuy tuutale ma sàmba wala ma Demba tey du ma toog si mukk mukk si kuréel gii ñaan ay kuréel gee ne ak di leen wàññi ba loolu boo ko defee yaa ngi minimiser sa bopp xeeb sa bopp la te ñun mag ñoo mag loolu. am na solo voilà am na solo yaakaar naa dañuy gàttal rek yaakaar naa yaa fi teewal promoteur lutte simple yi sum production la wala. maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar la grand. maa ngi leen di fay bu baax. Euh, di rafetlu aussi seen présence fii. Mm-hmm. macha allah mu doon ndaje boo xamante ni rafetlu nañ ko lool. Mm-hmm. doon rencontré CNG bi. lépp mm-hmm. nag euh, ñu tenkoon ko rek ci intérêt làmb. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa doyen bi wax na wax ji yëpp. première point bi nekkoon na ci loo xamante ne da ngay xeexee rek ñu annulé sa journée ci loo xamante ne. xamoo fan la soqee ko. macha allah muy doon loo xamante day métti ci ñun lool. loolu exemple bi duma ko jëli ayoor exemple ci man mi waroon a tëgg euh, le 18. toog a ba jeudi ñu woo la ne la kay jël xaalis bi làmb dootul amati te yaakaar naa mise bi ñu may delloo. moo gën a ndaw ci samay finance dépensé ci énormément pour mun a jaay sa làmb toog a toog ba benn takkusaan rek ñu woo la làmb amatul nga yem ci noonu noonu noonu noonu noonu. làmb dépassé na jamono yooyu. te gis nga niñ ma laajee xaalis bi pour mu mun a ñëw avant événement bi. loolu c'était pour sauver xaalisu mbër yi mais man ana man fan laa war a weeru fan damay perte noonu rek mu jeex takk ñoom dañuy xalaat ay nit lañ ni ñu xalaatee nag ba mun a protéger mbër mi nañ gëstuwaat nag promoteur bi loolu il est temps lamb gëstuwaat loolu te dafa bëri fu ñu toll nii deuxième point bi nekkoon euh, problème mu comment dirais-je euh, subvention yi foofu aussi mënatuma fee wax lu ëpp li Alioune wax déglu nañ leen am na propositions yi ñu jox ne nañ ko partager waxtaan suñu biir après waxtaan boobu nag xam naa fu ñu toll rek dinañ ko mën a siwal ba ñëpp jot ci macha allah. am na solo yaakaar naa ne Diender Production. ba pare nag non njaay njaay moom mënta ñàkk non njaay moom dina wax jandeer yaakaar naa ne yaa ngi tëgg mois de juillet combat yu neex diggante jam ceeri ak Ahmed Dem mhm. ak Modou Anta ak Aline Sey numéro 2 combat yu neex daal Baba Jaxal caatu ngiwél tey tamit ñëwoon ngeen waxtaan ak CNG bi da lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet bi waaw ñu ngi lay ziar Modou Anta di nuyu mbokk internet yëpp leen ziar bu baax leen jaajëfal mhm. di jaajëfal suñu naataangoo promoteur ñu fi taseel tey doon rencontre CNG bi waxtaan nañu bu baax macha allah daanaka li ëpp si waxtaan bi yëpp liñ si war a développé yëpp Aliou Gueye développé na ko euh, ñun daal ñu bees la ñu xam nga rek dañoo ñëw fépp fu ñu woo dinañ fa ànd ak ñoom ñu góorgóorlu benn lenn rek laay ñaax promoteur yi mooy lii du intérêt falu Ndiaye wala intérêt Alioune Gueye yi promoteur yëpp la ñu bàyyi xel ci affaire clan yi ñuy def ay groupe bi groupe bi groupe bi parce que tey jii li dal Ibulaay tey suba mun na dal keneen mm. ginnaaw suba mun na dal keneen mm. kon nag nañu booloo nekk benn ñu xeexandoo suñu intérêt ñun ñëpp dal mm. loolu moo ci gën a am solo di ñaan yàlla nag yàlla boole ñu ba bépp luy intérêt promoteur ci CNG bi rek promoteur yi gagné intérêt boobu daal. waaw loolu daal moo doon kàddu yi. Aline Gueye wax na lépp. ñu ngi seen ginnaaw xam nga ñun dañoo bees dañuy jàng rek. ñu ngi seen ginnaaw yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp daal jërë ngeen jëf. am na solo jëmay kay kaay mais mënta ñàkk numéro un xam nga ne moom doo ñëw ba fii tamit toog maa lay nuyu baax suñu fàll di la ziar. Euh, ñu ngi lay fay bu baax mu danta di am mbégte tey ci teewaay bi mm-hmm. vraiment di féliciter promoteurs yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp mm-hmm. di leen wax ne kontaan nañu te it bëgg nañ di nuyu tamit mm-hmm. équipe bu CNG Bira seen jiite muy équipe boo xam ne vraiment oyof nañu tey dal dalal nañu nu nga waxtaan ak ñun ci li nga xam te ne nii mooy suñuy jafe-jafe ndax jafe-jafe moo ñu fi indi waaye bu jafe-jafe mën nañoo toog suñ coin am na solo yaakaar naa ne ci ñi sës ci nga bokkoon muy le 10 ak le 11. Mhm. li ma lay laaj rek kan la reprendre làmb yi parce que xale yi ñu ngi toog liñ amoon yëpp dugal nañ ko ci seen ay combat mhm. leb nañ dugal ci jaay nañ seen i xar dugal nañ ci tegg nañ seen i natt dugal ci. Mhm. yéen aussi tamit ngeen dem fay ci télé yeeg ci site yi def seen promotion toog di xaar dara amul. kan la ñuy xaar pour làmb reprendre. waaw xam nga Mourante boo xoolee ci Grand Aline rek da ngay xam ne lii du affaire intrain mm. ndax actuellement macha allah te pourtant day bàyyi itteem yëpp pour ñëw accompagner assister. Mm. Jandé production bokkul ci benn association. Mm. Ibulaay c' est la même chose waa Jàmbaar Wrestling c' est mm. chose. c' est dire ñun defuñu pour association. defuñu pour kenn dañoo def pour monde pour euh, milieu de la lutte monde ñu fexe dajale leen ñu xoolandoo li nga xam ne mooy jafe-jafe làmb ñu taxaw ci waxtaan ci. biñ koy def nag fexe nañ ba woo ñëpp. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw pour ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo mais malheureusement. Mhm. nit ki nag kenn du ko tànnal fi ngay dem ak ñi ngay àndal. Mhm. waaye ñun làmb moo ñu tax a jóg. ñun amoon nañ journée comme ni nga ko waxee le 10 ni waa Jàmbaame le 11 Ibulaay ñu waroon a ñëw le 18. Mhm. noonu la tournée yi continué ñu ne nag ñun dootuñu permettre état vraiment ñuy dem ba dernier moment ñuy annulé suñu ay journée te duñ ko teg fenn ci lu leer. Covid bi mu ñëwee ñu annulé journée yi kaasuñu. dañoo xam ne Covid la réew mi la impacté kenn mënu ci dara. mais lii du Covid. Mm-hmm. ay cas personnel la wala ay kaa mm-hmm. yoo xam te ni nit ak nit la. Mm-hmm. kon loolu tey ñun ñu permettre mu yàq suñu làmb ji nawetaan yi am football bi am. championnat Sénégal lépp di am ñu ne làmb kese la ñaane mel ni làmb moo gën a nekk lu lu lu baaxul ci réew mi. te làmb nañ xam ne mbiru noobu la. ay espoir di ci bëre ay jeunes di ci bëre boo xoolee tey comme ni ko grand yoo waxee huit jours ne ñaata litre ñoo ci war na bëre. kenn mënu ko comprendre te ñoo ñëpp dañ ko yaakaaraan pour jox seen waajur yi xaru tabaski jënd soble jënd pomme pour soutenir seen ay njaboot ñoo ñëpp tey ñu xañ leen ko te leen ko xañ mooy la yi pour subventionner leen leen promoteurs yi mën a dem subventionner mbëri jàppale leen bu ko defee képp koo xam ne loru nga ci ci loolu au moins na ma xaw a tuuti loolu moo nekkoon suñu point mm. beneen point bi comme niñ ko waxee mooy euh, subvention kii ñu ngi ci waxtaan di ci def ay échange ak CNG. am nañ yaakaar ne dinañ ci am loo xam ne satisfaction la ba nga xam ne làmb na ci gën a mën a soxalikoo làmb gën ci mën ne ni continuité lay nekk làmb mën cee bu mën di ñëwaat it am continuité boobu rek nga xam ne làmb na ci mën a gis boppam promoteurs yi nañ leen mën a jàppale ñu gën a mën a développé gën a mën a soxaliko ba nga xam ne pertement yi ñu def vraiment dootu métti ba pare seen alal yi ñu jël di ko investir dina wàññeeku benn somme mm. nga boole ko li nga doon def benn xaaj rek nga mën li nga doon def léegi bu doon année bi cent millions di nga mën a génne cinquante millions wala vingt cinq millions yoo xam te ni état de Thiès moo la koy accompagner mm. su boobaa di nga mën a yeneen business yoo xam ne di nga ko mën a def yu dul làmb te dina gën a mën a dox mm-hmm. loolu nag ñu ngi xaar CNG gën a waxtaan yaatal bi troisième nga xam te ni ay médical tappale la vraiment affaire bi metti lool ci promoteurs yi dañuy jékki-jékki rek ñu ne leen léegi mbër bi bii adversaire am lañ koy jox beneen partie bi ñu jox ko promoteur bi su ko defee yaakaar naa ñu médical yu bari na wàññeeku te yaakaar naa loolu intérêt lamb la te loolu du intérêt Fallou Ndiaye ndax liñ fi wax ni yëpp amul leen lu jëm ci poche Fallou wala mu jëm ci poche Grand Lin wala euh, mm. grand bi jandeer kon yaakaar naa lii am solo mooy ñu ànd suqali lamb ànd defaraat lamb ànd boole suñu ay force fexe ba état gën a reconnaître lamb gën koo jox gëddaam teewul nag ñu ngi commencé gis ne état mu ngi commencé dugg ci lamb di ko sentir mais dañoo bëgg état bu bu fi gën a sentir lamb gën ko jox gëdd bi mu nekk mais day fekk monde mooy formateur yi ak monde nekk benn di xàccandoo di dorandoo c' est très important loo xam ne intérêt lamb kese la lamb kese moo ci gis boppam ndax ñun li ñuy dox doxuñu ko pour dara dañ koy dox pour lamb kese bu lamb pare suñu kër lañu dem toog ne suñu ay business ndax lamb dundaluñu mais nag dañoo bëgg lamb gën a développé gën a suqaliku te lamb pour mu développé pour mu suqaliku promoteur yi lay jógee ndax ndax li cool yi bari bari lépp luy am ci làmb promoteur la koy def mooy fay ñëpp mooy woo ñëpp kon nag ñooñu dafa jar ñu joxaat leen cër bi ñu moom te dañoo gis ne cër bi dañ koo manqué trop te ñun suñu position mooy ñu fexe ba promoteur cër yu am ci làmb ñu jox ko ndax man toujours dama koy wax benn estar moom ci làmb muy promoteur bi ndax mooy bayaat bi li saab bi fees yëpp benn nit moo koy organisé benn nit moo génne xaalis bi yëpp benn nit moo de yëpp te kooku lañ gën a ñàkkal fayda léegi ci làmb dafa jot nag ñooñu jëlaat seen taxawaay ñu xoolaat ko ba yëgal seen niveau yi foo xam te ne nii ñëpp nañ leen gën a joxaat cër gën leen jox respect mm. ndax yi gis léegi mooy am ci promoteurs yi neexuñu te ñu koy metti lu kon nag dañuy mën lu bokk nday bokk bàyyi jël boole suñu ay force ba nga xam ne ni promoteur cër bi moom na ko amaat am na solo loolu ëppoon naa bañ a wax léegi nag euh, dañuy tëj ci Ibou Laye rek parce que xam nañ ne comme waa jàmbar production ak Ibulaay production benn la rek nga wax ci seen kàddu assurance a ngi nii taxaw taxawal fi jàmbar production dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk intona di borom la 18 bi nga xam mii <laughs> mu jëwul am waaw Mourante maa lay nuyu di mm-hmm. xam nga comme ni nga ko waxee rek man jàmbaar benn la kon su ma mm-hmm. waxee mel na ni jàmbaar moo wax mm-hmm. waaw le 18 bi nag moom xam nga tey mën naa ni euh, moo mën moo gën a tax sax tey taxawaay bi yëpp am te loolu tey maa ngi koy gërëmee promoteurs yëpp ñoom Aline Gueye Fallou Ndiaye ñu dox ci ñu dox ci tànk ñu dox ci ay jéego yu yu yu yu am solo parce que tey ñoom bu leen neexoon ñu ni vraiment Fallou boo neexoon mu ñu tey làmba moom yàqu na bu yàgg su yoonam nekku si mm. waaw kon moom ni mu yàqu loolu laa yàqulee mm. mais ñoom dañoo jël bis bi sax ñoom gën moo ko métti lu ñoom seen bopp xam nga xam nga tax wax nañ ci lu ñu mën communiqué nañ ci lu ñu mën parce que tey bis bi condition yi mu yàqoo wax dëgg yàlla ñoom wane nañu ni métti na axlu làmb yëpp ba tey moo taxoon fan yëpp ñu ngi gisee di ngi toog ñu ngi réunion ñu ngi waxtaan. xam nga kon daal bul ba pour bañ a guddal ñun li ñuy wax rek mooy li ñoom Fallou wax ak gars yëpp wax mooy état nañ ñu jàppale. Mm. dédommagé ñu ñu dimbale suñu mbëri yi tamit dédommagé leen. Mm. que mbër yi dañoo investir. Mm. dañoo def seen ay pexe xam nga lépp nañ ay xaalis. xam nga def seen promotion. def préparer seen combat ba mu toll foofu. mu jékki-jékki yàq noonu ci zéro kon il faut que tamit mu am benn taxawaay bu état taxaw ak ñun. ñu jàppale mbëri ñun daal loolu am lu ñu ciy dolli waaw. ok am na solo saison bi. kenn la ñuy reprendre. ah loolu nag. Euh, waaw loolu loolu xam na dañuy dañu war dajawaat am na loolu dañ koy bàyyi ci loxo. grand Alioune. no peut-être avant wala après mais en tout cas grand bi moom mooy coordinateur bi moom lépp lu si am rek dinañ def seen incha allah. am na solo mbokk kon lii lañ fi jëlee woon incha allah rabbi fu mu mën di toll rek dinañ coordonné ki nga xam mooy Line Production muy Aline Gueye di nit ku baax wax dëgg yàlla di koo xamante bi nii xeebalul kenn li nga xamante bi nii mooy taxawaayam wax dëgg yàlla liñ xam rek lañ mën a seede ci moom parce que nit ku baax la grand bu baax la. après affaire yi fu mu mën di toll rek incha allah dinañ leen ko andil toppal leen ko jox ko amateurs yi ak ñi nga xamante bi ni ñooy supporters yi mbokk yi di leen jox di daje rek ba beneen yoon incha allah rabbi jërëjëf. sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. li nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu boppaa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul la loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak feel like everyone's a stranger